Euh, waaw tey waxtaan noonu waxtaan wu am solo si mbirum budget mais xam nga suñu waxee budget rek euh, kenn du yem si budget bi du ñuy waxtaan si euh, activité minière yi nu mu demee si communes yi nu mu demee si région yi ak population yi nun ko nun ko gisee yan avantage la population yi am si loolu yooyu yëpp nekk waxtaan yu am yu am solo euh, waxtaanunu waxtaan leen bu baax a baax revenu yu euh, secteur minier di di apporter wax naa leen aussi fonds yu xam ne secteur minier moo koy apporter ci communes yi wax naa leen yi de manière générale lan nu mën a euh, am Euh, si expoitation minière yi euh, ñoom dans certaines zones waxtaan nañu aussi jafe-jafe yu nu population yi am c'est normal ñoom ñoo nekk député yi nekk si gox yi nu euh, nañu ay question am na question yu bëri nga xam ni noté nañu ko am na xam ne jox nañu suñu réponse am na xam ne daanu waxtaan ak ak société minière yi daan def sax ay réunion comme nu mu ko waxoon sànq ak le le député Demba Demba Sy Demba Diop Sy donc. ñu waxtaan yooyu yëpp euh, si euh, nun koy gën a rafetale parce que aussi kenn mënul exploiter contre les populations nun effect il faut population yi gis si seen njëriñ euh, président moo nii ni les ressources minérales donc ñoo ngi peuple moo ko moom du état bi sax moo ko moom état bi mënu ko def lu ko lu mu neex donc peuple moo ko moom il faut ñu rendre compte si nan koy exploiter am na donc ay ay ay ay ay ay waxtaan yu am solo je pense aussi ay ay jéego yu am solo yu ñu def et je pense que fii ak euh, yenn weer yi daan ko gën a euh, gis en tout cas si waxtaan wi et je pense aussi euh, vote bi jaar na yoon en tout cas ma leen remercier yéen ñëpp.